Papa Ngagne Ndiaye ni ñu ko waxee mbokk yi ci boppu xibaar yi dañuy dikk ak yéen ci yaatal gi dàmbale ko ca Ndengler foofa jàpp nañu ne euh, déggoo dox na fa ci diggante ñi nga xam ni ñooy béykat yi ak waa Sedima loolu nag mi ngi am ci ndimbalal jëwriñ ji ñu denk wàllu biir réew mi euh, di ministre de l'intérieur moom moo fa demoon waxtaan ak ñoom ba jàpp nañu ne daal déggoo amandi na euh, ci seen biir ñoom waa Sedima ak waa Ndengler dañ fay fekk suñu naataango Abdourahmane Diallo jàppandi na Abdourahmane maa ngi lay nuyu. maa eh, Rahman lay fay Papa Ngagne Abdourahmane lan nga ñu mën a wax eh, ci li ñu jàpp li ñu jàpp ni ak déggoo la ci diggante Ndingler ak waa Sedima. Eh, li ñu jàpp mooy am na ñu bari sax ci béykat yi fi mu ne nii dellu nañu seen i tool sànq lañ ñun sax ñu daal di génn fi nga xam ne moom mooy bàyyi fa taw bu méttee métti euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi di xamle ni dogal bi nga xam ni nguur gi jël na ko ba ñoom ñu mën a dellu seen i euh, tool doon na mbir mi nga xam ne lu ñu rafetlu la li ni mel sax a tax euh, ki nga xam ne moom mooy fa nekkoon chef de village bi di Ablaye Dione di xamle ni jamono ji ñu leen jiite rek mooy nan la ñu war a mën a def ba tàmbale seen i liggéey fexe ba jiw ndax ñu mën a am nawet bu baax loolu mu ne nii moom mooy farata bi lépp lu jëm ci wax ak xeet gi ni mel mu ne nii dañ ko bëgg a wàññi bi waaye teewul waxtaan yi dinañ ko wéyal ci waxtaan yooyu sax ñu ngi xam ne bi li ñu gën a bëgg mooy ñu delloowaat leen seeni suuf door seen moomeel waaye teewul dogal bi rafet rafetlu nañ ko te fi mu ne nii nag ñu ngi concentré wu ci li nga xam ne moom moo jëm ci. waaw Abdourahmane li ñu bëgg xam rek mooy xam nga coow li Ndingler la woon ak Jilaax ndax wàll wi féete ak Ndingler loolu la ñu waaw wàllu bi nekkee Ndingler moom la ñu lijjanti ba jëlaax ñoom li ñu doon gën a ci jamono yooyu mooy euh, titre foncier bi nga xam ne moom la ñu doon dénoncé ñoom waxuñu nañ leen jox seen tool ñoom li ñu waxoon rek mooy titre foncier bi moom la ñuy dénoncé ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Ndingler ñoom dañu newoon seen suuf la ñu joxewul donc euh, ñaari problème yi nga xam ni bokkul donte sax euh, ci benn site bi la waa Jilaaf ñoom li nekkoon seen problème mooy titre foncier bi nga xam ni dañ ko joxe moom la ñu doon dénoncé ndax dañu jàpp ni Babacar Ngom dañ ko waroon abal suuf si nga xam ni bu fa liggéey ba pare mu bàyyi leen seen suuf waa Ndengeleer ñoom li ñu wax mooy suuf si nga xam ni Babacar Ngom moom la yor suuf soosu ci la ñuy béy nañ leen delloo seen i suuf ndax ñoom ñu wéyal seen i liggéey. jërëjëf Abdourahmane Diallo nañ ci dellusiwaat euh, kon ñu jàpp ni déggoo amandina ci diggante waa Sidima ak waa Ndengler euh, ñu des euh, ba tey ci réew mi ak ci wàllu taw yi ni ki démb nag euh, taw bu bari daanaka taw na ko ci Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñoo yëngu ci wàllu météo fare ci ANACIM li ñu xamle mooy fan yi di ñëwit taw bi naka lay noonee lay wéyee fileeg ay fan dañ ci ànd ak Abdoulaye Diouf kenn la ci kilifay ANACIM yi am na ci lu mu dénk El Hadj Ndiogou Diène Dakar am nañ vingt six millimètres vingt six millimètres mais également ci biir dëkk bi fu bëri amoon même euh, gox yi nga xam ni ñoom ñoo nekk euh, si wàllu bët gànnaar am na ay taw yoo xam ne jot nañ ko fa nemmeeku par rapport ak situation yi passé déjà am nañ quarante millimètres euh, Dabia am nañ aussi gox bu ñuy wax Dokki Jawe am na trente millimètres même Podor sax am na vingt millimètres ak yeneen gox yi comme ay Boxol yu am 8,8 virgule millimètres bu ñu demee si côté centre bi am nañ ay gox yoo xam ne am nañ fa ay taw yu xaw a takku déjà à Toubacouta am nañ fa 73 treize millimètres buñ ñu demee si goxu Fatick aussi am nañ passé bi nga xam ne am na donc globalement taw yi daal xawoon na takku ci zone centre bi euh, zone sud ouest bi aussi euh, am nañ fa par exemple à Kolda 61,5 mm. donc sud bi yëpp daanaka am nemmeeku nañ fa ay taw ak euh, côté sud est bi

même Dakar sax amna ay taw yo xamni ñu ngi ko fi xaar. ak RFM kumpa jeex na. ci tribunal la ñu jëm ak àtteb ki di Ousseynou Diop ñu ci fatali ci atum 2016 le boomoon Ibrahima Samb euh, fital la ko dóor lool nak ma nga xewon ci ben station essence bu euh, nekk ci Yoff euh, ci la ko dóoree fital mu daal di faatu atum 2016 ba suñu jonne yalla tay mom Ousseynou Diop mi ngi ci kasso bi tay ji nak la koy chambre criminelle ci tribunal ñu fekki fa suñu naataango Abdou Diouf Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Papa Ngagne. atte bi dàq nañ ko ay yoon yoon tey nag mel na ni taxawal nañ ko lan moo ci feeñ. waaw jamono ji nag euh, ñu ngi déglu ki nga xam ne moom la ñu njortu ne moom moo faat ki nga xam ne moo di Ibrahima Samb euh, ci 11h30 ba léegi ñu ngi koy déglu ci biir wax yi nga xam ne nag moom euh, tontu yi nga xam ne indi na ko nee na daal amul woon intention tirer maanaam bi mu taxawee waa ji mbëkk ko borom taxi bi mbëkk ko moom Ibrahima Samb. mu génn euh, ñu xaw a jàppante ci la dellu ci otoom ba mu delloo ci otoom nag ci la yëg ne am na ku koy topp ngir euh, daal di koy menacé nee na ci la tourné rek gis ne katel bi dem na moom mu mu daal di daanu nee na loolu noonu la yëf yi demee waaye amul woon intention euh, faat ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Samb waaye nag li ñu mën a jàpp ci li ñu mën a seetlu moo di ne témoin bi nga xam ne moom la ñuy déglu jamono jii nee na ay yoon yoon yu bëri moom jëm na leen àtte waaye yëf yi lu xawoon a xaw a jafe la si ñoom ba tax na euh, ci ginnaaw gi la la leen bàyyi waaye ci la ñëwaat gis ne euh, ki nga xam ne moom moo faatu di euh, Ibrahima Samb mi yoroon taxi bi moom mu fekk ko ci suuf noonu daal noonu la gisee mbir yi. jamono ji moom témoin boobu moom la ñuy déglu xam naa ci kanam incha allah dinañ am xibaar indil leen ko soobee yàlla. Abdou jërëjëf ci coowal fetal la ñu des ba tey ca Touba ndax xam na kenn ku ñu jàpp koo xam ni ay fetal yu bari la ñu fekk ak moom ma ngi ca commissariat bu guy mbind jamono ji ñu waxe enquêteurs yi eh, ñu ngi koy déglu ba tey dinañ ci dellu si ak eh, Marema Diop suñu natango ba nekk foofa eh, ca Touba. Euh, ñu wax ci coowal appartement yi nekk ci Eden Rock te kii di Abou Khalil Bourgi moom ko euh, moom Bibo Bourgi nag euh, appartement am yooyu nguuru Sénégal ne dañ koy jaay ay avocat li ñu xam ne nag mooy ku koy waxaale ku ne boo ko jëndee jënd nga loo xamul ndax ba léegi ate bi dafa leeragul ndax ñoom dañ koo kalaame feneen ba amoon ci ndam te nguuru Sénégal sàmmantewul ak ndam loolee nga xam ni am nañ ko dañ ci ànd ak Youssouf Bodian mi jàng seen communiqué. ngir xamal ñi fas yéene jënd appartement yooyu le avocat Ibrahima abu Khalil ñu gën ko xamee ci Bibo Bourgi fàttali bii la ñu def nee nañu juróom-ñaari appartement yu Eden Rock yi nguur gi fas yéene jaay ba tey am na coow yoon bu ko topp nee nañu ginnaaw bi CREI yi tegee loxo appartement yooyu le ñoom avocat yi attaqué nañu boobu boobule ci kanam commission des nations uni pour le droit commercial international ñu yokk ci seen communiqué ni état bu Sénégal dañ ko daan ci atum 2019 ndax jëfewul li yoon wax waaye loolu taxul nguuru Sénégal bëggul topp dogal boobu boobule moo tax it avocat bi woo Bourgi yi wax ni ñu tegee loxo appartement yooyu le ak anam yi ñu leen bëgg a jaayee jaarul yoon ba tax na kon ñuy artu képp koo xamante ni am nga yéene dem jëndi leen suñ sukkandikoo ba tey ci communiqué bi juróom-ñaari appartement yooyu nga xamante ni ñu ngi ko bëgg a jaay biñ ko xayma lu tuuti rek moo ci desoon ngir mu matt milliard loolu ëpp lool somme bi nga xamante ni moom la ko nguur gi bëgg a jaayee manam 650 millions de francs CFA sous of ci directeur des domaines ci RFM Mambo Jao Diao wax ni li ko dalee Njaimi, ci mardi bi la ñuy njaay mi te képp ko xamante yi bi Ibrahim Abou Khalil ñu gën ko Bibo Aliou Samba Diassé ak Pape Mamadou Pouy leen atum 2015 juróomi at kaso topé complicité ak Karim Wade yoon daal di kon teg loxo ci seen am-am bokk na ci appartement yooyu nga xamante ne ñoom la ñuy waxtaanee tey di Eden Rock nekk ca centre ville bu Ndakaaru ñu wax euh, ci daje bi amoon niki démb nag doxoon ci diggante waa SYTJUST di syndicat bi gàlloo wàllu yoon ak ñi nga xam ne ñooy ministère de la justice amul dara loo xam ne lu ñu mën a jàpp nag lu euh, tukkee ci ndaje moomee lu am njëriñ la ndax jëwriñ ji di Malick Sall li mu xam ne mooy lañ fa tënkee da koy yóbbul président de la république euh, muy càkkuteef ñi di liggéeykat yi muy seen ay càkkuteef ngir xool itam yan matuwaay la ca président di jël waa SYTJUST itam ni ñoom faaw ñu dem waxtaan ak seen base xool itam ban dogal la ñuy jël ci wéyal seen xeex bi ñoom waa SYTJUST ak ministère de la justice. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. mbas mi ay loraangeem di wéy ba tey daanaka ñeenti nit ñàkk nañu seen bakkan ñu bari jëlati nañu jàngoro ji ah, dañ ciy ànd ak euh, docteur Mamadou Ndiaye. ci ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ñaar fukk ak juróom-ñaar contact mooy ñuy jaxasoo woon ak ñu yore doomu benn importé bi jóge bitim te ci région de Saint-Louis am nañ ko ci mu am juróom communautaire mooy ñi nga xam ñu ngi jot ci doomu ji te xamuñ am ci Mamel amben, Bambilor amben, benn amben. ñent fuk ak ñaar si ñu ñu entré won hôpital wër nañu té dinañu génn niki ni ki tey bu ci yalla andé ñent fuk ñu ngi ci service de réanimation ñent ñak seen bakkan ni ki altine ñaar fukki fan ci weeru juillet biñ nek ñeneen ñi dess ñu ngi am tan ci bësu tay dalé ko ci kaabu ñëk Sénégal wañina juroom ñetti junni ak juroom témèr ak juróom-ñett fukk ak juróomi kaa ci ñooñu juróom-benn junni ak ñeent fukk ak ñeent wér nañ si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal suñu mbokk ñi nga xam ne dañoo am ci seen ñooñ ñu di ñaanal ñi des ci hôpital yàlla may leen tan ba ñu ak jàmm. ñoo ñu wàññeeku ci mbas mi sax li ñu nemmeeku mooy seeni i néew lu néew moo ko daan gunge euh, waaye jamono ji gis nañu ne daanaka bu ñuy rob ñu bari dañu cay euh, teew loolu nag ñu gis ni euh, gënul day ku nekk da ngaa war a jël ay matuwaay ba mën a mucc ci jàngoro ji dañu ci lool nag di xalaatu ay kilifa yu nekk ca service di d'hygiène ñoom ñoo ko xamle dañu ci ànd ak jàngatu nafisi nafisatu si la ca njëlbéen buñ doon denc ku faatu ci jàngoroy coronavirus dañ ko doon amal ci anam yi nga xamantene moom lañ doon def ñi faatook Ebola ànd ceeg nag kaaraange bu kawe dayo waaye Rasoul Ba di chef de brigade service d'hygiène bu Dakar bokki tamit ci riposte bi foofee ca Kous di dalal xel yi. dañ ko seere woon tuuti dem nañu sax ba ne en fait parents yi duñ ko laal affaire yooyu des choses comme ça mais au fur et à mesure que ñuy gérer ma feebar bi dañ ciy jàngale aussi feebar bi pour que doomu jàngoro ji mën a génn ci nit. faut que nit ki di wax doomu jàngoro ji mën a génn wala mu sëxët doomu jàngoro ji mën a génn wala mu tisooli doomu jàngoro ji mën a génn loolu tax kon ñu xoolaat procédure bi indiwaat ko ci ay dimension yoo xam ni en tout cas euh, mën na méngoo ak sunu dundin waaye ak nu mu mënti demee ngir fagandiku rek faw ñu amal ab décontamination ngir mën a yemale jàngoro ji am na effectivement li ñuy def pour aar nit ñi aussi ci loolu parce que day am décontamination cabinet corps assister aussi sa population yi pour lavage corbi, bi ni ñu koy défé accompagner len pour que le yëpp en fait euh, euh, su fekkee ni amna risque aussi mhm. euh, mu parce que risque zéro mom amul fenn ba légui mu ngi jàng ci feebar bi loolu indi en fait un peu ñu alléger procédure Rasoul Ba ba am lu mu gëm ni liñ ciy tiit ci mbolo muy dajé fofu sax la ëppee liñu ñu doon ragal plutôt et que néew bi mu nekk source de contamination loolu moo taxoon ñu def procédure boobu mais léegi peut-être li ñuy mën a ragal mooy euh, rassemblement yu funérailles yi di am day favoriser que feebar bi mën a law ci communauté bi li ëpp nag ci li ñuy ñaax weesuwul ñu respecter lii di mesure barrière yi ci fépp nag fu mu la mën ci fekk pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi RFM rajo bi jaamu seen soxla ca Sigicoor la ñu jëm foofa wàllu dem bi ak dikk bi ci euh, société bi di Sotrazic euh, ñoom nag dañ ko tagga témbeel euh, oto demul oto dikkul li ko waral mooy koppar yi ñu ne dañ leen koo jagleel ci wàllu mbas mi te jotaguñu ko moom la ñuy laaj Lamine Ba ñi nga xam ne ñu nga yeewoo fii ci Ziguinchor am nañu leen bett tey ndaxte dañoo yeewoo bëgg jël li nga xam ne moo di bus Tata yi waaye mu fekk ne dañoo gereew daanaka ñu bari mujj ñu xëy ndax gàllankoor wi nga xam ne gereew we amal na ko tey ci suba ñi nga xam ne ñoo di waa Sotragic li ñuy naxarlu mooy nee nañu li ñu toog ñeenti weer kenn fayu leen li nga xam ne moo di seeni salaire li ko weesu nee nañu nguur gi ba léegi sàmmontewul ak kàddu yi nga xam ne jëloon na ko dig ne dinañ leen jàppale ngir mën sukkali transport bi nga ne loroon na bu baax a baax ci li nga xam ne nag moo di mbas mi dajaloo fa nga xam ne nag moo di rond point Aline Sitoé Diatta Maodo Kandé moom moo jiite kuréel bi nga xam ne mu ngi ëmb liggéeykat yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci SOTRASIG duñ taxaw taxaw fi tey mooy ko ñun dañuy ñax dafa fekk ne ñun dañuy liggéey lu mat ay ñeenti weer mu jotuñu salaire boole ci ñu am lu ñuy naan compensation financière bu état bi jox employé yi parce que comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp dund nañ mbas bi mbas bi dund na dund bu métti donc ay borom kër ay responsable bi ñu toog pendant 3 mois 4 mois sans salaire dellu ci encore lu si gën a métti loo xamante ni ñu ñoo koy yelloo une compensation financière au moins je vous parle nous dara fait, ñun dañuy beaucoup rentrer dans nos fonds. moi bu ñu fi jógee dañuy délégation de rencontrer monsieur le préfet. loolu la ñuy fas def. nee nañu nag seeni grève bi diñ ko dakkal fi léegi kilifa yi saafarul jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mu jëm ci wàllu payoor yi waaye ko yi nga xam ne war nañ leen ko jox mu jëm ci wàllu jàppale leen ci gàllankoor yi nga xam ne jëlee nañ ko ci mbas mi waaye balaa déggoo di ci am nag askan wa yeewu ci Ziguinchor dana woy di dund loraange wi nga xam ne mu ngi tukkee ci grève boobulee Lamine Ba Ziguinchor rajo jox Média Lamine Ba jërëjëf dañuy dem ca Ndoukoumane foofu lu toll ci fanweer ak juróom benn ci ay dëkk dëkkaan léegi nag ñu am courant lu toll ci fukk ak benn ci ay milliards lañ ci tabal ci ay koppar ngir ñu mën a am courant foofa ca Ndoukoumane jàpp Nioro dañu ci ànd ak kii di Oumar Ndiaye moom kilifa la ca département bu Kaffrine ñu déglu ay kàddoom ñàkkum courant bi ñu nemmeeku ci dëkk yi Digaloo ak Gambie nekk ci département bu Kaffrine ak mu Nioro léegi tey mu jeex ndax lu tolloog fanweer ak juróom benn dëkk dañu fa dugal courant bu ñu sukkandikoo ci Adama Diouf nekk président des élus waaye tamit ñu tabb ko vice président association des régions francophones ci fanweeru dëkk ak juróom benn Kaffrine am na ci fukk dëkk ak juróom mais lañ cay teg nga tax ña fukk dëkk ak juróom yi ñu boole ko ci frontière yi ndax boo seetloo Ngayeen Sabax Medina Sabax Jama Gaajo Nganda Bintu Salam de benn ligne la motax ñu ñoo bokk projet bi. ba ca teggu association des régions francophones man vice président la fa nekk maa yore lépp luy environnement eau énergie ci ARF ñu jox ma projet bu am solo pour war a électrifier dëkk bi dëkk kàll yi. daañu ko dooleel nag ak juróom-ñetti cluster ngir mën a dooleel courant bi ci yooyu la gox. neex na lool mooy dañ ci dugal juróom-ñetti cluster cluster mooy ay usines yoo xam ne day tabax day togg courant donc en plus des huit villages euh, fukki dëkk yi ak juróom teg nañ ci juróom-ñetti cluster des ñuy installé muy daanaka ñaar fukk ak ñett loolu lu am solo la loolu day togg courant ndax courant courant menuisier métalis yi xam ne dañuy soxla courant bu rëy bu bare bare bare solution ci ñoom coupure dina wàññeeku courant bu doy dina ñëw ba doy forage yi ak yëpp courant la ñuy doxee projet bi nag koppar yi toll ci fukki milliards ak benn mu soxal département bu Kaffrine ak bu Nioro ñu war koo door ci atum 2021 bi ñu dëgmal Kafrin Omar Ndiaye RFM. kon lerna Omar Ndiaye euh, ñi ngi lay gërëm bu baax di suñu natango euh, ba ñu nekkal fofu ci euh, Kafrin ñu dik dal ci tabaski gi ren nak lu toll daanaka ci genn walu milliard mom la mairie bu Dakar fas yéene dimbale ñi nga xamni yitté wo nañu ko wara tollu nak nag ci fukk ak juroomi junni doomi aadama ñu war leen sédélé kenn ku ci nekk war ci mën am daanaka juroom ñetti junni lolu ville de Dakar def nak bari na ay commune d'arrondissement ren yo xamni duñ ko mën. Euh, Mouhamed Ali Mouba. ren itam ville de Dakar jàppale nécessité ñoo xamante ni daanaka seen loxo jotul seen gannaaw. ci tabaski bi jot nañ ci sélectionné lu ëpp euh, fukki junne ak juróom nit ñoo xamante ni war nañ am ku nekk juróom-ñetti junne Babacar Abba Mbaye Moi, directeur de la santé et de l'action sociale qui est ville de Dakar dakar li fi ñàkk euh, précarité ak coono ne ci doole yi nan la organisation fa lañ koy fekk fan la am euh, ba fexe ba nu ñu mën a jàppale waa Dakar. commune d' arrondissement Dakar Plateau bokk na ci commune euh, yoo xamante ni jàpp nañ ñi ñoom itam war nañ jàppale ñi amul doole ci Dakar Aliou Ndoye maire ba jot na dégager budget ngir soutenir nit ñi. muy daal presque huit mille bénéficiaires ñuy avoisiner des quatre cent cinquante millions. ci ndimbal goo xam ne commune bi daf waaye nag boo xoolee bu baax ren commune yu bëri du ñu joxe ndimbal tabaski daanakay xaalis bi ñu préparé woon ngir joxe ko ci wàllu woowule dañ ko dugal ci lutte contre coronavirus bi buñ sukkandikoo ci maire yooyu de ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana di Cheikh bu Fall nekkoon na fi jëwriñ fii ci biir réew mi nekkoon ambassadeur bu Sénégal itam ca bitim réew ñàkk na bakkanam nataalam ak Awa Mbaye yoonam ci wàllum politique mi ngi ko defee ci keppaaru kilifaam ci wàllum parti di maître Abdoulaye Wade Cheikh Sadibou fal nag doon koo xamante ne léppam parti démocratique sénégalais la ba tax bépp post boo xamante ne toog na fa xar militant bu am pas-pas ak yéene la ko gunge mu nekkoon na commune d'arrondissement Point E ci 1996 ñu teg ca ñaari at mu doon député ba noppi jiite groupe parlementaire bu PDS foofee ci assemblée nationale ci atum 2000 gannaaw ba ñu dàqee Amath Dansokho ci gouvernement bi ci la dugg nag am fa place commencé ci ministre de l'urbanisme et de l'habitat teg ci pêche à ak poste ministère de l'intérieur Wak djou lèr ak djou djar yon, minkotope ki tak gat bimo ame di jirist bon nopi, kham khaman matye ki waloum finans moudjange konak digente universite bundakaru, Bordeaux, ak Boston doomu ndakaaru bii nag jóge fii ci capital bi dali barom ngir toogal fa Sénégal ci poste ambassadeur foofee ca Italie ci atum 2005 ki nga xamante ne nag moom la bokkaloon parti di Habib si di seede ne nit ku baax la woon ba noppi pas-pasam ci biir parti bi ak ci wetu maître Abdoulaye wadd kenn mënu ko natable moom Habib Sy jàppoon na Cheikh bu Fall homme d'état woon ba noppi am respect ci ñëpp rawatina ñi mu bokkal parti démocratique sénégalais ay at a ngi nii Cheikh Sadibou Fall weer a ko woon am juróom-ñaar fukki at ci waxtu woowu la génnee àdduna ci Bordeaux ca France xibaar yi bitim réew Georges Madelu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne. Euh, dañu koy tàmbalee ak Mali mel ni am na ñeenti njiitu réew yoo xam ni dem nañ ngir wàllu dëkk ba. Alassane Ouattara Macky Sall Mouhamadou Issoufou ak Nana foo addo ñu ngi leen di xaar foofu ci Bamako alxames gi ñu dëgmal ngir ñu waxtaan ak ña seq euh, langu politique gi ak euh, société civile ci jafe-jafe yi nga xamante Mali mu ngi koy jànkoon ren xamaguñ nag ñaata fan lañ fay def ñoom njiitu réewu Afrique saw jant yooyu waaye seeni i tukkib nemeeku foofu ca Mali mu ngi am gannaaw euh, médiation bu CEDEAO bi mu lajjee euh, ci euh, délégation ba fa demoon ndax M5 moom àndutu woon ak recommandation yi nga xamante ne délégation bi defoon na ko loolee tax sax ba M5 àdduna ci communiqué bi nga xamante ne waa CEDEAO siiwaloon nañ ko faama jon ñi bokk ci rassemblement force patriotique yi bëgg lépp leer solution institutionnelle yi nga xamante ni mission cdao mi ngi koy proposé àndul ak charte réew mii di Mali buñu ñu sukkandikoo ci ñi bokk ci mouvement boobule seen xeex tey muy sauver Mali te pour loolee am nag faw ibrahim Boubacar Keïta mi nga xamante ni moo ko jiite guddi yi tekki ndombal tànkam moom ak gouvernement ci poñ boobule euh, communiqué médiation CEDEAO mel ni da cee patt pataaral àdduw ci benn yoon looloo tax nag mouvement bi jàpp ni médiation boobee indiwul ab tontu ci laaj yi nga xamante ni askanu Mali ñu ngi koy samp ñoom nag li ñu gis moo di médiation CEDEAO bi daf leen a ber ñuy jeexal seen communiqué di woowaat askanu Mali yépp nee nañu nañu mobiliser taxaw daal di jël seen àq bi nga xamante ni constitution moo leen ko mooy mooy wàcc ci mbedd yi nee nañ nag du Mali donc même diaspora bi sax woon nañu leen ngir ñu jëfee ñu mel nañu ni ngir Mali am lu faaw rek ñu fa ba IBK tekki ndombal comité stratégique M5 jël na dogal ne euh, wàññi doole xeex wi maanaam désobéissance civile loolee li waral mu def dañoo bëgg waa Mali waajal ak euh, magal bu baax feetu tabaski bi itam ni imam di ko dalal na ambassadeur yu France États-Unis ak euh, Union européenne. Georges ca Guinée la ñu jëm ndax front bi teewoo xeex lépp lu jëm ci aar seen constitution démb yëngal nañ dëkk ba. kilifay euh, FNDC wala bokk kàngam ya euh, ñu ne nag euh, manifestation bi réussite bu jaar yoon la woon ku jegi di weddi noonu kat yi nga xamante ne waa ministère de la sécurité yëkki woon nañ ko di leen di xoqatal sax ne gouvernement bi nee na activité yi ca Conakry yëpp ñu ngi doon jaar yoon dara amu ci woon gàllankoor Cellou Dalein Diallo nag du boobee gis-gis la am ndax moom nee na. lépp a taxawoon ca Conakry démb waaye yokk na ci ne kenn ñàkku ci bakkanam on est arrivé à la conclusion qu'il faut faire partir Alpha Condé. C'est le seul slogan qui marche. Il a refusé de mettre en place. gisel suñu bopp nii Alpha Condé respecté wul nit ñi moo tax il faut ñu que ko ci bopp réew mi ndaxte respecté les institutions, yi respecté le ken, haute cour de justice bi waroon jugé qui di Alpha Condé dit que léegi nii fonctionné Moi, Alpha Condé mingi def lu lu ko neex di violer constitution bi di violer accord politique yi ñu signé moo ñu ne Alpha Condé abal ñu foog nga joggi ci bobu réew manifestation bi ñu defoon démb nak ku nek xamna dañ ko interdiroon mo taxone sa mom Alpha Condé réquisitionné gendarmerie police ak armée waaye ku nek gis na lu fa xew xalé yi dañoo génn route def ay barrage brûler ay pneus paralyser activité économique bi ci ville bi port bi doxul administration bi naka c'est vrai amuloon cortège bi ñu bëggone waaye nak circulation bi dañ ko barré complètement lu ñu bëggone moy won monde bi daanaka Alpha Condé nu muy jaxat jaxate constitution bi di ko fooye ngir am présidence à vie nekk ci bopp réew mi ba saa yu ko neexee démb nag amuloon nit ñi dee waaye am na juróom nit ñoo xamante ni jot nañ blessé par balle waaye mun nañ wax ni ci cadre xeex troisième mandat bi am na ay nit ñu bëri yoo xamante ni daanaka jot nañ leen rey ay centaine de morts ci côté Guinée forestière ci côté Zérékoré foofu Alpha Condé ubbi na fa ay charnier rob fa Mais hier, durant la manifestation d'hier, il y a eu cinq blessés par balle, mais il n'y a pas eu de mort. George Soudan lañu jëm fofu am na fa procès bu ñu ubbiwaat ñeel Omar El Bachir. mu di procès bi door tey euh, talaata njiitu réew ma woon liñ koy toppee moo di coup d'état bi amoon atum 1989 taxoon sax ba mu ñëw ci boppu réew ma. umu kalsom li ci ay leral ben aljuma la won bésub julli ci fajar ay tak der nak demone tej aéroport ba ba nopi tek loxo ay njitu parti radio ya nak di xamal ne askan wi coup d'état amna kiko ki nak di ben colonel di Omar El bashir ak jàppale ni di wa islamiste yi di wa NIF gouvernement premier ministre ba won nak di sadakh Al Mahdi mi nga xamanteni tabon nañu ko momit daanu na pouvoiru bees ba nak di xamne ne askan wi dañu ñew rek ngir sowe len Omar El bashir nak tabon nañ ko chef d'état bu gouvernement bu l'armée bi fanuer attaque ben ginnaw ci ki di dictateur bi war cour bi nga président cour suprême moo ko d'appel mi la constitution ba mën nañ ko Omar El Béchir nag atte ak ak civil ak militaire ak vice président ba woon di di général Bakri Hassan Saleh bilee affaire nag bokk na ci ñeenti mbir ñu toppee jiitum réew ba woon ba tax na tëjoon nañ ko ñaari ati kaso ndax lii di corruption ñetteelu affaire ba nag muy dañ ko tuumaaloon ni daa fipp woon ba mu yóbbeeko ab daanoom ci weeru mai 2019 ñeenteelu affaire bi nag muy tuuma bi gën a rëy ndax ñii di waa cour pénal international dañ ko toppee ni daa faat ay nit fële ca Darfour Omar El Béchir nag dafa mës a mucc ci ay mandat d'arrêt wante nag gannaaw bañ ko tegee loxo laaj bi mooy ndax Khartoum dana ko mu nga joxe. moom Omar Béchir nag moom muy jóge ci bopp réew ma ci weeru avril atum 2019 gannaaw ab coup d'état Papa Ngagne. Georges Déthié Diop jërëjëf ci xibaar yi tàggat yaram yi la ñuy dikk daal ànd ci ak Soxna Sode Thiam. ñu doore ko ka fanweer ak juróom-ñaareelu bëccëg bu première ligue bi ñuy woyal niki ji ak Watford mi dalal Manchester City bu juróomi waxtu ci ngoon jotee gannaaw ga Aston Villa dina dalal Arsenal bu 19h15 minutes jotee Wolverhampton nag moom gannaaw ba mu daal di gagné Crystal Palace niki démb ñaari bal ca dara mi ngi teg ay gëtëm ba léegi ci ligue Europa bi ci googu lay jongante sax gis na ni défenseur français bu Crystal Palace bii di Mamadou Sakho dafa daal di amee ab gaañu gaañu loolee tax mu daal di génn ci pàcc bu njëkk jongante gi tàmbali niki tey jii fanweer ak juróomeelu euh, bëccëg bi ak ñaari jogante Atlanta Bergame di am Bologne Sassuolo di dalal AS Milan bu 19h45 minutes jotee Juventus de Turin niki démb gannaaw ba mu gagné Lazio Roma ñaari bala ca benn ci ab doublé bu Cristiano Ronaldo def daal dinay gën a dëgëral place ca bopp classement bi jamono ji nag mi ngi daal di rawee juróom-ñetti poñ ka nga xam ni moo topp ca ginnaawam di Inter Milan ci jamono ji nga xamante ni nag ñeenti bëccëg moom moo daal di des championnat Juventus mi ngi ci yoonu ko jël juróom-ñeenteelu uh, tiitram bu tegloo côté transfert jiixi jaaxa mi ngi bëgg a am ci transferu Kalidou Koulibaly ci jamono ji nga xamante ne nag Manchester City ma ngay waaj a boucler bu Nathan Ake ak ñeent fukki million d'euros am na nag ay défenseurs yu bëri yoo xamante ni des na ba tey ci listam kenn ci ñoom di Kalidou Koulibaly agent wu international sénégalais boobee nag moom dafa daal di waxtaan ak président bu Naples ci intérêt bi nga xamante ni Manchester City am na ko ci défenseur central am boobee nag waa Manchester City ñoom la ñu noppee fay ci Kalidou Koulibaly moom moo di juróom-ñaar fukki millions d'euros ak juróom loolee nag président bu Naples mënu koo dégg moom la mu wax ni moom lay joxe joueur am moo di téeméeri millions d'euros ca France Paris Saint-Germain nag daal nay officialiser niki talaata ji ci suba mayoom ya nga xamante ni moom la war a jouer ci saison gi ñu jëm niki tey jii sax moom Paris Saint-Germain dina amal ñetteelu jonganteem diggante mag Celtic Glasgow lay doon ca Parc des Princes bu 19h jotee loolee nag nar a nekk jongante xaritoo waaye itam wàccaay gu mujj laata ñuy amal ñaari final coupe nationale yi coupe de France niki aljuma seen digganteek Saint-Étienne gannaaw benn ayu bés coupe de la ligue seen diggante ak Lyon waaye nag bu ñu amalee coupe de la ligue boobee ba pare Paris Saint-Germain dafa daal di fas yéene amal ab jongante xaritoo digganteem ak Sochaux juróomi fan ci weeru u loolee nag ngir waajal itam ligue de champions gi nga xamante ni war na tàmbaliwaat ñu wax ci wàllum basketball Houston Rockets nag ñoom jamono ji mat nañ gannaaw ba nga xamante ni James Harden daal dinay ñëw beneen joueur ga ñu doon xaar di Russell Westbrook te nga xam ni dafa amee woon jàngorok coronavirus daal dinay rejoindre équipe bi ni ki démb waaye ba tey nag naam def na ñaari test mu négatif il faut que mu daal di ñaari fan ci néegam laata muy amal séance d'entraînement ak club bi. Sode am jërëjëf mu nekkoon xibaar yi tàggat eh, yaram yi xibaar yi mbas mi di Coronews ak Soxna Binte Diallo. talaata ji ñaar sulet. mu mel ni coronavirus bi dal na ci kaw fukki million ak juróomi doomu aadama ci àdduna bi yépp soo demee États-Unis kaa yaa ngay gën di yokku weesu na fukki junni ak benn doomu aadama yoo xam ni am nañu feebar bi ci tey jiir kepp bilang bi itam noonu la mel ca Brésil tey jii rek am nañu juróom-ñaari téeméeri doomu aadama yoo xam ni faatu nañ fa mbir itam mi ngi yokk ca Italie waaye du bu baax bu baax nag la yokkoo ca Angleterre tey jii rek soo demee ca Belgique enregistré na ñaari téeméeri cas yu bees coronavirus bilan contamination yi noonu itam la yokkoo ca Chine Chine sax te jii talaata ji dina amal campagne bu mag boo xamante ni dañuy dépister ña dëkkee ca Chine Allemagne bilan bi itam noonu la yokkoo boo demee ca Portugal itam noonu la demee mu mel ni réew ma sax dañu ko pàcc pàccee ñetti pàcc fileeg fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi ñu ne épidémie bi itam mu ngi yokk yokk gu metti ca Mexique Mexique dépassé na France dépassé na Espagne dépassé na Italie ci li mu faatu kon Mexique mooy léegi ñeenteelu réew bi ne ci àdduna bi bi nga xamante ne ñu fay faatu fa la ëppee Iran moom i tamit kenn demul bàyyi ko ginnaaw ci feebar bi metti na lool li leen dal Russie itam naka noonu ca Corée du Sud tey jii rek am nañu ñeen fukk ak juróomi yu bees contamination Pérou ñoom nag ñi ngay waajal déconfiné Inde ñoom tey sax ci talaata jii lu ëpp benn million doomu aadama la ñu compté ci ñu am feebar bi moo tax li ko dooree alxamis jii di ñëw téeméer ak ñaar fukk ak juróomi million doomu aadama yeey yeewoo ca Inde dinañ leen reconfiné waat ci diiru ñaari ay bés épidémie bi daanaka noonu la yokkoo ca Chili ca Égypte naka noonu moo tax Égypte mi nga xam ne ubbi woon na ay frontière am benn fan ci weeru sulet ba tey jii fa mel ni saison touristique bi daal demeewul noonu ñi nga xam ne sax dañoo réserver woon yónnee nañu daal di koy annulé waat nu mu gën a gaawee boo demee ca Maroc ñetti téeméeri cas coronavirus yu bees tey jii rek am nañ ko fa Algérie moom i tamit cas yaa ngi fay gën di yokku nguuru Algérie nee na dafay bàyyi frontière am yi ñu tëjee ba keroog pandémie bi du jóge ci àdduna bi mu mel ni kon épidémie bi nu muy lawee ci yeneen continent yi noonu lay lawee ci continent bu Afrique waaye bu gën a yamambaay boo demee ci Afrique du Sud virus ba mu nga fay wulee ñaay jógeegu fa Afrique du Sud nag bu ñu moywul moom mooy kii nara a wane yoon wi nga xam ne foofu la continent bi nar a jaar ak virus bi ki ko wax mooy directeur bi yor situation urgence ca OMS ñu jëlee xibaar bi ci journalu France bi ñuy wax Le Monde. ak RFM kumpa jeex na. soxna Binta Diallo jërëjëf reportage yu tabaski gi tey ca Thiès la ñu jëm daral bu ñu naan sew xaay Cheikh Anta Diop lañ ci àndal. ay junniy xarde ñu ngi leen di wàcc bés bu nekk fii fii ci daral gi nekk ci sew xay ngunjaan di daral gi gën a mag ci département bu Thiès waaye fii am fim xar mu baax yombul jamono yi jaaykat yi daanaka dañoo aj njëg yi xam nga boo ma la jaayee wax ma la mais bari nga gis ko bi ñaata la bi ñaata la bi jën ko 170 lan 170 te li nga mun 80 baax wallaay raw na man maa ngi tudd Boydika Mali lañ jóge Mali waaw ah. ah, mais yéen xaru xaru malien yi jar na de. Ah, moom seer nañ moom ak xont beeg yooyu xari moom mënuñoo yomb ndax feeñ taxe moom uh-huh. taxe ma amul. waaw mais kon xari war na yomb. non xont bi moo seer. transport oto yi. amam xar lu jafe la ñenn ci jënd jëndkat yi nee nañ nee nañ de mbir mi metti na lool ci ñoom. waaw man maa ngi tudd Daouda ñu ngi dëkk Ngoundiane fii. takk leen seen masque yi takk leen masque yi. mais dalal bi fii daa mel ni farataaluñu ñu yi de. non dara njëgu xar yi moom wax dëgg seer na. am na cent mille am na cent vingt cinq am na cent trente. waaw am na cent quinze am na cent vingt ba ci cent waaye jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor càmm gi di sàmm njóobeenkat dikkoon fii ci dara lu seexaay na nag ren jii lim fi gisagun dal na xel xarit dinañ bari lool waaye nag mi ngi sàkku nag ci jaaykat yi ñu ëf seen loxo ngir ñëpp mën a am xar. gëm nañ ne ñun ay surgay population bi lañu suñu xeex suñu kii guddeeg bëccëg mooy naka la ñuy def pour accompagner kenn ku ne ak loo mën di am nga mën a am xar waaye duñu tere nag ñu waxtaan ak ñuy jaay xar. muy Sénégal yi muy moritaniyen yi muy Malien muy Nigérien ak kum ci man di doon ñëw ñaan leen yërmande tuuti jëm ci consommateur bi. waaye ñu gis ne nag fii ci sew xaay ay fan yu néew a des ci jullit tabaski ji. waaye am fi mu de jafe na lool. njëg gi ci gën tuuti. daanaka ñaar fukki junni jëm kaw la. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. yéen a kaay Mamadou Mouhamed njaay lañ ci àndal. jirë ngeen jëf coowal ndeng leer laa ngi ne say ci yéen ba mel ne ngaragu dee ci leer soleil national moom la xëy ci xëtamu njëkk wax ñu ne ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo jóg solo dàllam dem fa ci turu état bu Sénégal waxtaan ak waa ndeng leer wëlbati ko waxtaan ak l'homme des affaires bii di Babacar Ngom ba léegi ak déggu am na ci ñaari wàll yi baykati ndeng yi doon laaj seeni tool ngir mën a am fu ñu nawetee danañu jotaat ca tool ya tey ji ci talaata ji bu bi jeexee nag ci la ñu fas yéene su wér ci coowal suuf ca ndeng gàkkal liggéey ñu fa doon def ci jëlaat tool yi delloo ko baykat ba nawet bi jàll vox populi nañu loolooy li am président Macky Sall moo addu jël suuf si waral coow li ca Ndengler delloo ko seeni borom en attendant nawet bi jeex ñuy sàkk pexem daayiman l'observateur bindal ñu ci page 3 ne ak déggandoogim la maanaam accord provisoire état bi moo ko dogal ndax jàpp na ne bu ñu fi nekkee di taaweeka lawlawal ke ëcc jëme fu kenn xamul nawet bi moom du xaar enquête dina kay feelu ko wax ñu ne lom de affaire bii di Pape Babacar Ngom Sidima gum na tànkam ci suuf si waral ñol ñool yi ca Ndengler ba ñu delloo ko baykat ngir ñu dem bàyyi la mel ne ku naan ñu jarut a léegi ndax donte Babacar Ngom dellu na gannaaw ci yëf it du tee xaar nawet bi jeex mu laajaat suufam journal l'info nañu lu aju ci moomi mbir cib communiqué boo xam ne jote nañu ko ci ministère de l'intérieur ci la ñu xamle président de la république Macky moo santaane ñu dellowaat baykat ndengleer yi seen tool yooyee ngir ñu mën a am fu ñu nawete santit waa Sidima bépp liggéey boo ne nemmeeku nañu fa mu di loo xam ne def nañ ko te tegewul ci yoon ne ci rapport bu inspection générale d'état bi ci la gis ay rëq-rëq yoo xam ne am na ci anam yu yore caisse d'avance bu état bi foofee Les Échos nañu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moom it ARMP autorité de régulation des marchés publics téye na loxoom ci benn marché boo xam ne dañu caa gis lu dalul seenum xel marché la bu jëmoon ci ay kit production énergie solaire ak ay équipement d'intervention marché bu tolloon ci ñeenti téeméeri millions ñu jël marché ba jox ko ko ko xamee woon moo waral bi waa RMP yëgee loolee bàyyi wuñ ko mu sori dañoo annulé marché ba marché di tekki ci tubaab dox justice réew mi nga xam ne doxatul daanaka nam war a doxee jamono ji enquête dina kay ci la xëy di enquête ci lan moo indi tàggatémbe gi gis na ne ay semaine ngi ni justice su Sénégal doxinu cuux lu lay doxee dem sax ba yàq ci lu bari ndaje mi ñu doon amal démb ngir lijjanti ko wut cee saafara ndaje ma jurul dara ba tax syndicat gi di SYTJUST fas yéene jéggi ministre de la justice seeti meneen pexe ak feneen fu ñuy fajee seeni tawat secrétaire général bu ci journal bi diis ak ak bëgg wane sa bopp gu mënoon a ñàkk moo indi blocage gi le quotidien nañu boole ceekit accord 2018 doxoon ci diggante gouvernement bi ak waa sudjust da ci am ak lees waxul gu ci am moo waral ba léegi président Macky soowul ci signé décret boobee gaañi di laaj ñu bari li laaj jamono ji moo di lan moo am dëgg-dëgg ci mbirum xale bu jigéen bi ñu gis ñu di ko tumal ak càcc ak di ko pamte pamte ba di ko saay-saaye yi l'observateur las ak libération àndandoo indi ci ay tontu administration bu Sénégal yéenekaay bi nee nañu xel mu sutante la amee newoon na sax ci hôpital ba ñuy faje ñi amee feebaru xel ca Caaroy keroog nag dafa dugg ci boutique prêt à feebar bi daaneel ko fa ñu jàpp ne ab sàcc la ay nit jàpp ko yóbbu ko ci ginnaaw doon ko fitnaal di ko pamte pamte ak doon ko làmbaatu ñi doon def loole libe nee nañu jàpp nañu ci ñaar am na ñeneen ñaar ñoo xam ne dañoo daw waaye ñoo ngi leen di wër la Sénégal xamal ñu ne xale bu jigéen boobee ñaar fukket ak juróom-ñeent la am kees la bi ñu ko recruté mu war a liggéey fa la ko doon ko fitnaal ak doon ko pamte pamte las xamal nañu ne lu aju ci pëlisub jëppal jàpp nañu leen l'observateur ne ko jàpp ñu ñëpp ñett lañu ñu jàpp ñaar ña mu des kenn ka dafa daw moom xale bu jigéen bi ministère fa mu doon liggéeye fa ko yëfi dale ñu dali ci suur soi mi xëy dal ci bali fetal ak fital yi pëlisub Tuuba daloon keroog yéenekaay bi nee nañu xibaar yi ñu ci mujj am moo di am na ñaari adjudant ak benn lieutenant yu sûreté urbaine yoo xam ne envoyé nañ leen Tuuba ngir ñu wéyal bi ci mbir ma it journal bi nee nañu am na keneen teg nañu ko ci loxo ba ma nga ca garde à Dibani Gis Gis yéenekaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye ñi ngi lay gërëm bu baax euh, dikk dal nak ci gis-gis muy euh, point de vue tay ñuy waxtane euh, gannaaw tawub démb bi li nga xamni def na ko ci mbedd yi ci walu ndox ñu japp nak ni walu assainissement moy liko waral ci loolu dañ ci ànd ak Pedre Si mom moy directeur bu exploitation ci ONAS way di ci ànd ak Omar Cissé mom ingénieur le ci walu génie civil Pedre njëkk ma ngi lay nuyu. ma ngi lay nuyu Pape Ngagne. Omar Cissé ma ngi lay nuyu. waaw ñu tàmbalee ko ak euh, Oumar euh, Cissé Oumar euh, gis nga ni taw bi démb jàpp nañu ne taw bu am doole la ban gis-gis nga am ci bi nga génnee ci dëkk bi ndax jàpp nga ni ndox mi waroon naa gën a dem jafe-jafe ci ndox waroon naa ñàkk itam. waaw jërëjëf am ngañ ñu ngi ci taw bi yi. Mhm. na fi am nay bés yoo xam ne sax ci bu bi ñu sonnee trop demoon nañ ba téeméeri milimètre mhm. euh, te loolu yëpp damay wax ni euh, c'est bon waaw ñu ne ONAS mais dama ni ONAS benn pàcc rek la ci mhm. ndoxum taw euh, ñeent ñeenti pàcc daf ci am solo mhm. benn bi mooy fan la ñuy dëkk dafa am foo xam ni mooy ci xur mooy ci marigot mooy ci dépression muy ci booru fële lu yooyu yëpp daf ñuy dal ñu fay dëkk et parce que toppatoo wuñu fi ñuy dëkk kenn daf kenn kenn daf ñu jàppalewul ba ñu am fenn foo xam ne fu ñu dëkk foo xam ni mën naa fu mucc ayib la loolu bokk na ci lu bari yi di indi la problème inondation beneen bi nag mooy waaw foofu ONAS dina fa intervenir maanaam bu nit ñi nit ñi bala ñoo dëkk ñu defar ay réseau ay canal karab karab fi lay jaar fi lay jaar dañu leen nañu xàjjale nag ndox mu salte bi ak ndox mu taw ndax yenn saa yi fa ñuy dëkk ñun même avant ñoo koy defar mën nga ko toppatoo toppatoo boo xam ne sax ndox ta ndox du fa taa. Mhm. kon xam nga soxlawul kanaan. Mhm. loolu yëpp ci wàllu dëkkuwaay la. te yenn saa yi fàttaliku même ci biir Ndakaaru yi da ngay gis yoo xam ni plan ba ñuy def pour lotir lotissement. Mhm. dinañu sax fii euh, jardin moo fi am fii lii moo fi am mais ci cappaandaw ga. dañ koy def dëkkuwaay. dañ koy def dëkkuwaay kan moo war a saytu loolu. loolu yëpp jar na bàyyi xel. dëgg la ba ñu ñëw nag léegi nag ci wàllu dañu war a def ay. amna fo xamne ay liwe fo daal def ay yoon ay canal fo ndox mu jaar. foofu on a on a on a dina fa taxaw. mais dama ci yokk rek ben affaire bu tuti foofu. gis nga barki daw gis na ben photo ñu woné bo dugal tapi ñu woné ndox mi bari len rek ka waraloon fenn fu ndox mi jaar fu fa ñu ñu gis nak ñu di mu jéggee dé te lool rek la woon. man dama jàpp ni ci walu entretien bi. wa baxna on on amna ay moyens amna leen ni muy def. d'accord mais gis nga maire yi. buñ leen jàppale woon tuuti xanaa dindi suuf defaraat mbalit mi ba nga xam ne bu tawee du dugg ci kana canal bi fottanti regard yi am na yoo xam ne yu bari bari bari bari maire maire yi mën nañ ko def. d' accord euh, jë jërëjëf Oumar Cissé naa dikkaat ak yow euh, Pedre euh, ndox bi moo moo moo bëriwul wala jéego yi ONAS def mooy jéego yu am solo pour yow lan moo tax. ndox mi taataa yi ni ñu ko doon xalaatee demeewul noonu. non jéego yi moo bari xam nga jéego yi d'abord ñun chaque année.

Euh, amoon nañu cas inondation ci amoon yoo xam ne am na population bu yu bëri yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu euh, génne woon yóbbu leen fële ci euh, maintenant si fes mhm. xam nga pour parce que seen dëkk yi seen tëywaay yu bëri dafa dafa kii woon dafa dafa inondé woon mhm. depuis période boobu entre 2012 et maintenant nag on a ce qu'on appelle le programme national de lutte contre les inondations où état bi dugal na ci xaalis bu takk boo xam ne def nañ ci ay infrastructure yoo xam ne moo ñu mën permettre ñu mën a léegi vraiment ci zone yi nga xam ne yu bëri amoon nañ amoon nañ problème léegi problème bi wàññeeku na néew na jeex na à 100% mais wàññeeku na bu bare bare bare bare bare bare mun mhm. mhm. naa joxe exemple boo mhm. xoolee boo demee ay Guy Sapot boo demee ay Amdalaay ay Santanten bi boo demee maintenant eh, si Tudjum Xóob boo demee amoo cinq boo ñëwee Parcelles Assainies fii boo ñëwee eh, nga ñëw ba eh, même au niveau de Ouest Foire Nord Foire foofu yëpp am na infrastructure yu yu am solo yoo xam ne def nañ fa nga dem fu ñu mën fu ñu wax Mbour maintenant si Sonatel boo demee Fatick nga dem Kaolack dem Euh, dem Kaffrine dem Touba ba saint yëpp am yoo xam ne état bi def na ko entre 2012 ak mhm. boo xoolee loolu tax na participer na ñu wàññi. ñu atténuer ci ci mhm. ñu amoon daal dinaa ñëwaat ci yow euh, Umar euh, kon mu mel ni ñoom li ñu wax. neexaguñoo natt ndax li nga wax léegi bu ñu sukkandikoo ci millimètres yi ñu am natt ci liggéeyu bonas du du yomb loolu ndax noonu la demee. Pape man inondation du ma natt du ma ko nattee liggéeyu ONAS. Mhm. Euh, mooy li ma wax rek ne li koy indi bari na. Mhm. am na ci benn boo xam ne ONAS moo fay taxaw. Mhm. sànq ne na euh, comme maa ngi nuyu Pedro bu baax li mu fi am na solo am na solo maanaam plan plan décennal inondation boobu muy 2012. 2012 2022 2022 war a indi sept war a ñu dépensé 767 milliards. Euh, dama daan wax sama xarit ma leen waaw bu ñu xaar fin wu 2022 mille vingt deux pour xayma ko. Mhm. gis nga plan bu ne 760 milliards soixante fofu ci ñetti pàcc yi benn bi rek mooy gestion des eaux pluviales benn bi rek mooy ay ay ay ouvrage beneen bi aménagement territoire la. Mhm. beneen bi affaire restructuration urbaine la ak logement mhm. plan boobu ñu wax noonu comme pour wax ni rek ouvrage am na solo mais benn pàcc pes ci benn ci benn pàcc la wante nag leneen laa ciy bëgg a yokk li Pedro wax wax na dëgg am na gox yu bari daan fu dan dan dan daan tumuranke ci wàllu mbënd bi wañ wàññeeku na fa ndax góor góorgóorlu nañ ba dugal fa ay ouvrage gis nga dëkk. dañu xool Ndakaaru ñu ngi ci trois millions et quelque. at mu yàlla sàkk. Mhm, day yokk am na ña euh, téeméeri junniy nit. Mhm. yu bees biir Ndakaaru. Mhm, nit yooyu. boo koy xayma ci gàttal buñ ne tax logement bu nekk juróom-ñaari nit. at mu yàlla sàkk am na ñetti junni kër. wala lousement yuy dem di dem di dem di dem. Mhm. bi ñuy wax inondation dañuy wax taay fu mu taree dëgg dëgg dëgg biir Dakar mooy bi ñuy wax ci ci ci zone de Niayes ba. Mhm. ca booru ca ca Pikine ak ba banlieue ba. Mhm. mais damay ni fàttali mais zone de Niayes commencé wul Dakar jeex Dakar ma nga ba Ndar. parce que deux cent kilomètres. nit ñi dëkkuwaay yaa ngi gën a dama bëgg ren ñu gën a surveiller. d'accord ñetti ñetti gox. muy ban ak ban Dakar. muy ban dama bëgg naa ñu surveiller bu baax Kër Massar. ñu surveiller bu baax Bambilor. Mhm. ñu surveiller bu baax Tivaouane lu tax lu tax. ndax dëkkuwaay ba dafa. imperméabilisation bi dafay gën a tax. d' accord léegi euh, Pedre foofu yéen ndax bàyyi ngeen ci xel wala dafay dellu rek ci li mu wax ni euh, yéen seen wàll tuuti la ci wala ONAS am na ci matuwaay yu mu jël ci ñett yooyu mu ne nañ ci bàyyi xel. ñett yooyu bàyyi nañ ci xel mais comme comme ni nga ko waxee li nga boo gisee foofu fu muy wax Kër Massar Bambilor ak Tivaouane Peulh foofu waxee yëpp foofu dafa manqué lu ñuy wax ay ci ay infrastructure xam nga boo boo gisee boo gisee loolu mooy problème et deuxièmement aussi euh, am na foo xam ne boo gisee que buñ demee ndox ko. Mhm. boo am na xam ne mhm. ko bàyyi bàyyi benn espace boo xam ne bu ndox bi mën a jaar mais fekk yoonu ndox bi nit ñi dañ fa dëkk. Mhm. def fa ay kii loolu la plupart temps mooy li problème. mais xam nga bu boo xam ne mënuloo ko maîtriser da nga koo bàyyi bàyyi bàyyi à côté kooku moom doom temps yoonu ndox bi xam nañ xam nañ ko

Euh, mais mais yoon yoonu ndox yooyu itam ONAS xanaa am nañ ci wàll parfois ñaare balaa nit di tabax ah, dina am lu ñu koy laaj loo xam ni peut-être ONAS dinañ ci intervenir wala dara wala yooyu yëpp du du faral di am. non non dina am ci yenn kii les grands promoteurs immobiliers euh, dina am mais am na yoo xam ne xam nga peut-être que peut-être que ci commune beeg yooyu la yooyu moom euh, duñ ci am kii. Mhm. duñ ci am duñ ci am peut-être benn kii boo xam ne. ci uh, lañ uh, ko ci lañ ko am nañ ko mais am bari ñoo bu ñuy def comme les promoteurs immobiliers ñu bari ñu bind wax ñu mais ñun dem ba ci place xol bu dé ko fi mhm. bu dafa bu point bas ñoo ko point mhm. mais ci bari duñ ci duñ ci duñ ci wala aussi li am am man man nga man aussi promoteur bu ci zone day am ay les ouvrages mhm. yo ça date depuis vingt ans 30 ans ñu ko def seen terrassement tabax dem seen yoon loolu aussi day am te loolu aussi participer indi yu bëri ci état ci ci ci inondation ay ouvrage foo ko fekk da nga ko foo ko bàyyi d'accord léegi Omar yow li nga junj léegi nii am na ay bërëb yoo xam ni faaw ñu bàyyi leen xel wax nga fu mel ni Kër Massar wax nga Bambilor wax nga Tivaouane Peulh ñàgg euh, foofu moom ci ci suuf sala ci boppam moo tax nga wax ko wala ci dëkkin wala waaw xam nga euh, li may wax ci Bambilor Bambilor bu léegi moo bokk bokk na ci ñi accueillir bi bu méttee mhm.

ma yàgg ma namoon ci trop ñu amee ñu ñu bàyyi lu bari pour ay parc ay jardin mhm. mais bi ma déggee nii fukki hectares lañu bàyyi ci huit cent hectares man ah dañu xamul bu baax njariñu ay garab mhm. ay lakk ay maar ay dañu xamul bu baax njariñam ci dëkk gis nga moo tax ma ni bu doon sama sago mhm. di leen jàppale bu baax Bambilor ci région de dakaar dafa bokk ci commune yi gën a yaatu ndax niñ ko daggee. Mhm. bu doon sama sago ñu bàyyi ñu jàppale bu baax tool yu bari dañ leen garder mm, ndax ay zone de recharge la ay zone la benn rek laa ci yokk avant ngay pare mooy mhm. ci wàllu Kër Massar mhm. gis nga Kër Massar yenn yenn saa ne mu inondé mais parce que dafa am yu bari ñu bàyyi xel boo xoolee bu baax côté yu bëri inondé ci kër ci kër yoo xam ne ay zone la woon. moo tax loolu laay wax ni moo tax mën nañ d' accord euh, Pedre euh, na yu mu junj léegi nii ñaare moom moo mooy faral di indi li nga xam ne mooy inondation yi am na ci sax wàll bu ndaw boo xam ne jagleel na leen ko waa ONAS mais yéen ci seen bopp amu ci est ce que amu wàll boo xam ne askan wi ñoo ko ñoo ko ñoo ko yeeyoo euh, maanaam ci seen seen dundin ni nga xam ne noonu la ñuy jëlee lu jot ci mbalit ñu def ko ci canal yi nga xam ne moom ngeen di curé ñaare loolu tam dina am yan message nga leen mën a jagleel

bala mois de juin. mu feesat mu voilà moi t'as dañuy mhm. obligé ñun di commander au mois d'avril mai mhm. juin. nga xam ne mhm. bu ñu paree taw bi commencé du am temps encore gars yi même ak loolu ça boo paree bu ñu problème am ci. mais mënoon nañu bu fekkee ne wóor nañu boo curé bon nettoyer mois de janvier février ba di juin problème du am du ko mais on est obligé ñu xaar. trois mois avant. pour pour éviter éviter métallol nga problème yooyu ngay wax loolu moom dafay impact bu baax a baax réseau jërëjëf jërëjëf Pedre maa ngi profito di leen massawu coono yéen bu baax ah, te yaakaar naa ni euh, xam ngeen li may wax euh, ci seen wàllu liggéey ñu leen di gërëm bu baax ah, di gërëm Pedre si di gërëm itam Oumar Cissé euh, mu nekkoon point de vue gis-gis ah, tey ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ni taw bi dina ko faral di indi ci biir dëkk bi ñaare ñu leen di gërëm di leen jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla àndee Aliou Ba moo nekkoon ci xarala gi Pam Ngagne Ndiaye Choisir votre gamme de soins corporels.